mais bañ ñuy dem ci président naan APR a ngi dox Thiès mais doxul doxul lu dox fii daal mooy mouvement yi ndax benn nitu APR laa gisul bu wàcc ci base bi di jàppale président la république ndax ñi ñu war a solliciter ñu jàppale président la république sollicité wuñ leen te man loolu daf maa metti yàlla rek a tax may wax. xam nga boo xoolee gàmmu gi damaa ñëw jóge jàkkay Tukulóor

ba pare nag ñu ne dañuy fal président fii ci biir cees te ñoom ñu di wax amul kenn koo xam ne ma ëpp docteur Thiès ci benn laa wax docteur Thiès mënul kenn mënu ko fi ëpp doole ndax moo ngi jàppale nit ñi fi mu nekk léegi dama leen di laaj aussi bu dee docteur dafa bokk ci dafa bokk bennoo ma xam bu bokkul man xam du rafetul te man Omar dafa am lu ma gëm li nga mouvement yii bu leen président compté wallahi lu mu bëgg Cees du ko am mouvement yii loolu leer na naññ leer na naññ ni mu ngi da kan mooy caatu muumaay yi nga xam ne dafa mujjee judd muy Habib Niang dama lay wax Omar na ñëpp xaw dama am un jour ma dem ci handicapé yi ma dem ci handicapé yi am luñ ma wax ma ñëw man leen waaw mais ñu expliqué ma foofu benn cas ma ne xaar leen ma dem ma dem jubali ci Habib Niang fekk mu toog ma ne ko man daal handicapé ñoo ma wax lii ak lii mu taal otom ñu ànd fa dama lay wax Omar lu leera ah, bu ñu demee lépp mu laajee lan lañu ñu manqué yi laaj ko Habib jënd lépp jox leen ba ay mbatim photocopie boo xam ne dafa am wifi jënd ay beeke jënd lu ñuy defaree ay dàll ndax centre boobu Omar dafa jara dem lu nekk moo nga fa lëttkat yi ñoo nga fa ay handicapé nga ne dañuy lëtt ñoo nga fa lépp mu jënd def man yàlla rek a tax may wax Omar. maanaam métier ba nga fa daje quoi. waaw métier lu mu mën dugal na ko fa xam nga lu mel noonu handicapé dawoo leen lu mel noonu moo rafet keroog gis nga ko R100 gis nga ko keroog R100 moo ngi waaj a dem Madina Fall samedi nit day wàcc ci terrain Babacar Pascal ñoon barke démb man moo ma woo mu ne ma kaay gunge ma jobaas ma ànd ak moom ba jobaas man ku ma woo nag ma wuyu la ndax man benn leader laa am président la république man kenn du ma tënk bugguma ku ma tënk bëgguma ku ma tënk ndax sama wërsëg yàllaa ko yor wax naa leen ko fii wa maa min dabbatin fil ardi illa ala ku yor sama wërsëg dina ma ko jox même boo nekkoon ci biir bàmmeel dina dina am ku wax wetu bàmmeel bi dindi wërsëg bi ne am yow yaa ko moom ndax yàllaa ko wax Babacar Pascal ñoom barki dem ñoo ànd dem ba jobaas ci ay mbokkam moo ngi liggéey moo ngi dem ci kilifa diine yi gis nga keroog bi fa waa bi bi Baye Fall yi kii moom dafa dem seeti dafa seeti leen waxtaan ak ñoom xam nga lu ma la bàyyiwul kenn moo ngi dem ci kilifa diine yi moo ngi jàppale ay nit xoolal aasa yi lan moo leen gën a sonn Amadou Mbaye kenn lijjantiwul kenn kenn kenn Omar ab ah, Ablaye Dieye moo ngi def lu rafet ci dëkk bi na ko nit ñi nangu lu mu am joxe na ko man de li ma xam man kaa bu ma ko nee demal def ko mu mu dem lijjanti ko ab Ablaye Dieye xamul ma Babacar Fall beef gàcce ngaalaama xamul politique mais nit ku baax a ngoon Omar man damay seetlu nit Omar projet bee mu mu nas ceene ba ci nga xam ne tey bu sotti woon doomu Cees yëpp mun nañ cee liggéey ak doomu ceene ba yàlla ko yàlla yeggale man toog naa këram un jour di ko xool Omar mu toog toog toog dafa ñëwoon jaale si muy ñibbi dafa jël dara jox xale yi mun ne nañ ko séddoo fu gis xale yi moo ngi di dimbali lu gën a kéemaane Omar nga dem élection Babacar Fall laay wax nga dem élection ñu gagné la nga xëy woo xale yi nga ne nañ li ñu yàlla jox nañ ko sant yàlla mu sant xëy wàcce ay kaamil rey ay kiyam teral doomu soxna yëpp Omar ko nit ku baax la nit ku baax mooy def loolu baaba Fall ah beneen mbir mi dangay xool tey ah mu mouvement bu mel ni Mamadou Gningue bu Itacom moo ngi def lu rafet ca koñam di leen jàppale ci ay financement ah keroog bu xale yi demee dakaar seetu ko da leen la recevoir bu baax a baax man nag dafa am lu ma gëm man li ma gëm mooy mouvement yi Thiès nag toll na foo xam ne ñun kenn du ñu tànnal diwa fii toog man de du ma fi toog wax dëgg yàlla naan nañ ñu fi teg diw sama yoon new ci xam naa daal ñun ku ñu war a teg Thiès ñun xam nañ ko dañu seen ñu baax ñu am yërmande ñu jege population bi ñu teg leen biir Thiès waxuma nag bennoo yi ñoom kii ñu baax lañu day tikkee gi def lu rafet maa ngi koy jot téléphone maa ngi waxtaan ak moom te ku ma ko booleel it su fa ñëwee day ñibbis naa ma ndaw si ma booleel ndaw su baax la mon koy def bu baax Adja Ndeye Tické Ousseynou Diouf yóbbu naa ko fi pale mudul fen ci Omar yu mudul fen ak ay nit ñu am solo mais mudul fen lepp mujj yàqu ma ne si ngi fe da defa defa def lu mu am joxe ko bam jeex tak ah ñoom Je a ngi ci dekk soxna Mati Ndiaye mbokk la ci kilifa gi nek ci pale ba ñu waa APR yi nekk fii awma ak kenn non mais demale ne bennoo na ñiñ fi tan ñoo mënul benno fenn D'abord, le département bi amul problème département ba problème moo fi am maire qui def lu ñu des gens qui la Mbay Jonn ah, département département bi amul problème problème bi commune bi commune bi a gens ko ci pas des ñu ko fi mais duñu xol ma président tégal ñu fi nit su nañu moytu ñun ku kees solidarité boobu xaadim ku mën a dimbali xaadim mën na dimbali kenn mais day dem ci ay nit ñu dimbali ay nit ah ay opération lu ne xaadim a ngi koy def ci dëkk bi te xale bu ndaw la xale bu ndaw la nekk taalibi sëñ Tuubaa bu dëggu xaadim moomu tey Mor Gueye li mu am Cees am na ñi nga xam ne ñoom fi politique amuñu ko ndax li muy def Cees kan moo ko fiy def kan mooy jël alalam di ko jox nit ñi maa di jàppale nit ñi te yàlla tax Mor Gueye loolu kan moo ko mën a weddi est ce que mun naa tey xëy na Mor Gueye nañ jox Mor Gueye dëkk bi du ko def mais xam naa ne dëkk bi ku ko mën a jëli te waxoon moom doo dem nit ñi nañu waxtaan juboo nekk benn nañu nekk benn nañu nekk benn Omar wàllu jigéen ñi jigéen ñu baax ci biir APR ñu gërëm ñu jàppale anciens yi ñoom Amadou Mbaye ñoom ñoom day sukkay ak ñoom aji jaataak ah ñoom may mun a seenal ak ñooñu dañoo sonn nañ leen topp toppatoo dama leen ne Thiès kuñ fiy teg ñoo koy tànnal suñu bopp ñu ñu tudd ñëpp ñu baax lañu xam nga lu ma la mais man awma droit ne nañ tudd diw nañ jël diw def ko fi man awma ci droit mais xam naa daal président bu buggee lu baax na wax ak mouvement yii docteur Ndiaye bi ñu bàyyi fee docteur Ndiaye kese laa la wax billahi du question man li may ñëw ci moom ndax aussi moo ma ubbil buntam ma ñëw di ko fréquenté di waxtaan ak moom di waxtaan ak waa këram soxnaam nekk sama xarit mais leer na ma leer na ma leer yàlla buñ ko gënoon a jàppale kes kenn waxtu ndax amu fi noonu ndax kër diine yi ñi fay dem moom moo leen ko gën a miin man am na lu ma ci xam man kër diine yi ñëpp laa xam kilifa diine tey boo leen ne da leen di am na ñoo xam ne tey damaa toog ñoom ñu naan non problème kilifa diine yi ma ne ko sëñ bi kilifa diine yi lu ñuy def mooy dëgg ku leen jegewul doo am dara ci dëkk bi sekkante nii tey ñu naan day dem ci kilifa diine yi lu def man moom laa ànd ndax kilifa diine yi ko Omar tey yow seetu Cheikh Omar nga ah ku xaraboon léegi waa kër Cheikh Omar nga jóg nga defee ne boo ñëwee dem ci kër Serigne Seckante ni muy def dem ci kër Serigne si di dem di di leen nemmeeku mais loolu dafa baax Serigne si ku leen fi baat doo dem fenn ndax koo fi gis murit nga maa tijaan maa xaadir maa laay te ñoom ñoo yor dëkk bi dipp seen i maam mais président nag yàlla dimbale na ko moom dafa fonk kilifa diine moo ko soxnaam soxnaam na xoolaat Cees mi mu fiy teg très important dox soxnaam laay waxal ak moom élection lañ jëm élection yii du élection Sëñ Omar Dem du élection Sëñ Omar sar du élection kenn élection président la xam nga tey ñoo ngi def fukki candidat fukki candidat yooyu tey ku ci nekk fi nga nekk am nga fa dara xam nga loo lan moo gën a garaw ci àdduna ñiy wër toog ci benn kër leader naa noonu du am dara loolu gëwuma ko xam nga lan laa gëm nañu wàcc wax ak nit ñi nañu jege population bi gis nga suffrage yu président soxla légui lañ koy liggéey ñu jox ko ko wàcc terrain bi ci base bi di liggéenti ba jox ko président mais toog fii ba élection des ay 4 mois 3 mois billahi wallahi tallahi dana metti Thiès waxuma la feneen ndax ma feneen maa ngi dégg nag mais na ñëpp wàcc man ñëpp lay wax actuellement nii bu ñu wàccul danañ leen mere te président lañ jàppale président liggéey na ba dee dafa amul ñu ko waxal kees gii tey li ma la wax leer na billahi wallahi wal kitab man bu ñëwoon ñu toog maa ñu waxtaan ma teg ko foo xam ne mun yàlla moo yor ndam de mais lu bari dina changé Thiès te man soxluma ku ma fal soxluma ko mais maa ngi gërëm di gërëm mouvement yëpp bu ma kenn mere nag man nii la ma yàlla bindee su ma jógee fii yéen ñëpp samay xarit ngeen maa ngi leen di leeral ne ku ma woo ku ma soxla sama numéro boo ma woowee ma wuy si kenn président mooy sama leader ànduma ànd kenn du sama chef lu dul président mooy sama leader moom laa bëgg mu falu moom laa yéene ndam li yàlla na ko yàlla jox ndam dem leen nax ñi ngeen xam ne bokkuñu woon ngeen fekk leen bokkil mais koo xam ne bokkoo woon yaa ngi woon biir APR ñu jëlee la ci biir APR jël militant diw ñëw indi naan ci diw la nekkoon fi ñëw na ci yow musiba naaru laay boobu nañ ci wàccee kaamil ñu ñaan ci yàlla nañu yàlla musal ci loolu loolu baaxul diw fii la nekkoon président nañ ko wutali ñu bokkul ñu ñëw bokk ci biir président moo gën ñu yokk ndabalu président comme dañ ne Mouma ay dollil ma keek ni Mouma man Mouma yi laa gëm man gëmuma Omar kenn ku dul Mouma rek laa gëm te li ma leen wax man dama cee am lu wér Mouma yi ku leen jàpp am li nga bëgg. ku leen jàpp am mais nag nañ ma baal waa APR ngir yàlla nax leen leen ngeen waxtaan ak ñoom ngeen bàyyi Mouma yi lu ñu bëgg a def ñu yeggale ko li ñu nas pour juboo nekk benn yàlla lañ ci yàlla jàppale bu ma ci kenn mere nag ndax mere wu ma kenn jërëjëf yàlla na yàlla defal jàmm defal ñu sutura.